Sénégal bio Ghana 100 pour cent naturel composé ay produits yu mucc ay lépp di bio 100 pour naturel yu ci mel ni ñetti gàncax ak quarité 100 pour di yokk kattanu góor lu ci mel ni dëgëral sàkkaram bu baax a baax waaw waaw wala góor buy am sàkkara buy dellu dina ko génnee ba mu set wecc saafaral ko ko ba mu yëg boppam bio Ghana 100 pour cent naturel dina la may itam kattan bu baax a baax dina tax ngay gën a yëg sa bopp saa yooyu séq sa soxna ah mbokk yi xam ngeen ni baatu kër mooy nga yor lu dëgër yooyu séq ak sa soxna mu yëg boppam big lool ci yow moo tax bio Ghana 100 pour cent naturel ñëw fas yéene faj seen aajo ak seen bio Ghana 100 pour cent naturel yokku sa kattan neexal sa kër lépp ci sutura Bio-Kana 100 pour cent naturel ñu ne ndax foofu la yem ñu ne déedéet andi na leen yeneen xeetu produit lépp di bio 100 pour cent naturel ngir saafara seeni jàngoro ngir ngeen mën a am dund bu ñoŋ bokk na ci cuuraay yu mu defar pour bayre ak wërsëg mi ngi tudd gàpp gab bokk na ci itam cuuraay yu muy joxe cuuraay pour seytaane ak yeneen ci ay noon ak kuddul nelaw sax guddi gaawal gaaw jokkoo ak ñun ba ci produit bi ñu duppee cuuraay pour rab cuuraay boo xam ne rab rek ko tax a wala ki yaram wi des tayal lool wala kuy bopp bi di metti saa su ne ñëwal gaaw jokkoog ñun ñu jox la sunu ay cuuraay ak bio Ghana 100% naturel dañuy defar itam saabu yu mucc ayib saabu boo xam ne day toj léegi-léegi maanaam jooni jooni ay liggéey wala sax rab ba seytaane dara du la mënal dara saabu boobu nag mi ngi tudd Niki dinañ jaay itam savon Yuki jëm ci wàllu protection koo xam ne bañ na la lool ñu la bañ place wala mbooloo wala jinne saabu yukki bii la ñu lay diigal la daa ñu defar itam saabu mucc ayib bi nga xam ne mi ngi tudd kaba ngir booy ut këyit wala loo yaakaar mu tas wala ku tëju savon kaba bii la ñu lay diigal la suñu cuuraay fitte bii ñu ngi leen ko doon wax muy cuuraay bi ñu jagleel wàllu ràpp wala yaram yu des koo xam ne yaramam neexul la wala sax ku tayal lool wala kuy bopp bi di metti saa su ne boobee cuuraay mi ngi tudd cuuraay fitti cuuraay bi ñu jagleel seytaane ak ay noon wala sax ku nelaw guddi moo la ñu duppee cuuraay sibina ak ay produits bio gana 100 pour cent naturel mbokk yi bëgg a am gaawal gaaw woote ci sunu numéro 78 586 47 47 78 586 47 47 ak bio gana 100 pour cent naturel sunu adresse bu dee Sénégal ñu ngi fii ci kambarin 2 am nañu it ñu ñu représenté ca Paris la France ba réewum gana bu leen taaxirlu benn yoon ñëw leen jël ci sunu ay produit bio Ghana 100 pour cent naturel ngir aajo yu faju ba faw